pour daara yi programme biñ ci am mooy damay damaa wax ne dafa am benn conseil supérieur des culte religieux bu ñuy teg day am benn branche boo xam ne nii branche daara la boo xam ne ni liggéeyam mooy day mettre en place un académie di daara pour que daara yëpp am façon leen boo xam ne nii moom la ñuy jàngale waxtaane ko ak ñoom parce que ñoom ñoo koy déterminer fexe ba def en place tamit politique boo xam ne ñoom tamit dañuy am accès au pour am seen suuf am seen suuf ak titre foncier ak jàppale leen ci démarches yi administratives yi mu yomb defal benn dispositif de formation professionnelle ay apprentissage boo xam ne nii ci biir daara yi danañ am formation ba nga xam ne nii xale yi tamit buñ génnee rek danañ mën a liggéey defal leen tamit encadrement subventionné leen ba daare bi maam ay am ay projet yoo xam ne nii dana ko mën a autonomie di mën a gérer boppam dutu laajati ndimbal fenn fexe ba nga xam ne nii e, dana am synergie entre ñoom ak école tubaab bi nga xam ne ni da nga gis ku jóge ci école tubaab bi ñëw jàng si ci daara ji wala ku jóge ci daara ji dem jàngale ci école tubaab bi bu fekkee daara yi nga xam ne nii adapté wuñ njàngu euh, tubaab bi nga xam ne dana am synergie def tamit comme journée bu mel ni am na fekk journée bi état bi def ko genre partenariat yokk doole yi kii ba nga xam ne dana nekk journée internationale ba am doole ndax privé lu man-man état moo ko ëpp moo ko ëpp doole mais état du ñëw remplace ko mais day jël joxaat ko privé bi jàppale ko ci subventionné ko mu gën a def lu gën a yaatu noonu pour que prix yi gën a am doole mu gën a yaatu ci àdduna bi nga xam ne Sénégal mën na nekk un jour capitale international pour jàng alxuraan defar tamit benn tribune de communication ubbil leen moyen d'état yi rajo yeeg télé yeeg yëpp banga xam ne ñoom toujours dañ gën di communique di di mën a joxe exemple yi ci daara def tamit benn diplôme d'état boo xam day nekk diplôme officiel boo xam ne ci daara ndax tey kenn ku ne ci école bi nga nekk yaay def signer rek sa diplôme boo xam ne nii mën nga dem fenn ñu ne la reconnaître luñ ko ak tamit defal ay programme de bourse mooy xale yi nekk ci daara jàng ñuy am droit ci bourse comme ni ko ñu nekk université Cheikh Anta Diop euh, di def def na en place euh, des centre de départ sur chaque département moo am benn centre d'accueil pour les orphelins loolu tamit xam nga manqué nañ ko parce que léeg-léeg orphelin yi nekk ay jullit ba pare dem ci feneen foo xam ne nii du fa ko xëy na seen waajur euh, bëgge woon ndax dañoo amul moyen en tout cas daal loolu mooy li nga xam ne nii mooy li nga xam ne moom laa ci bëgg may wax nag ne su fekkee tey jii Sénégal dañoo yàgg wax ne doomu daara na bokk ci yëf yi dégg naa ñiy waare ci jàkk yi di ko waare ci euh, rajo yi di wax ne nañ ñam waa daara ñu d'accord tamit ne liggéeykat yi sonn nañ sonn goo xam ne ni ñu ci ëpp ñooy dugg ci géej gi ñu ci ëpp ñoom la ñuy jàpp bu dara am ñu ci ëpp ñoom la ñuy toroxal liggéeykat yooyu yàgg nañoo wax ne ñun tamit dañoo bëgg yéen ngeen dem dugg ci politique bi pour que ñun tamit suñ situation changé ñu d'accord tamit ne intellectuel yi nga xam ne nii ñoom la seen xel rafet yàgg nañ wax ne léegi ñun kat xaw nañu échoué ci benn côté mais yéen ñi nga xam ne nii yéen jóge ci daara gis nañ ngeen réussir ndax seen différence pour ñun yéen lu ngeen wax da ngeen ko def te ñun léeg-léeg am nañu calcul dem nañ ci élection daara amul lam ci war a am candidat daara bi sëriñ boobu candidat liggéeykat di amul luñ ci am nañ nangu nag ne ñun la yàlla moo ne su ma nangoo su ma naree alak aw xeet xar ya la wax nee na damay jiital ñëpp a gën a yées ñu jiit ñu jël ko yàq ko toj ko muy tasar nañ fexe ba nga xam ne nii yàlla du jël décret boobu moo xam ne ñun nag ñoo yàq suñu réew yàlla yebal ñu gën a yées ñu jiital ñu yàq ñu nañ xam ne responsabilité boobu nag seen responsabilité man def naa li